asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, ah, mbokk yi ñu leen di fu ngeen mat di nekk di ñaan ah, waxtaan bi fekk leen ci jàmm yéen a ngi ci seen émission l'ordonnance l'ordonnance bi nag man maa leen koy defal fii ci Regard 114 ngeen koy amee saa su nekk di ñëw ci lu yiix lu soxal seen wér gu yaram waaye lu soxal suñu diine kon nag abonné leen ci seen bi tey nag ñu ñëw rek bëgg gàttal wax ji incha allah ñëw ci ñi nga xamante ni euh, dañuy am ay papilles di am ay pistule di am ay nodule ñi nga xam ne seen yaram day xasan wala ñi nga xam ne dañoo xeesal ba mu yàgg ñu bëgg ko bàyyi seen der lakk yàqu euh, ñu bëgg ñëw ak yéen ci waxtaan woowu incha allah su ko defee nag vraiment euh, papilles pistule nodule yooyu yëpp benn benn xeet la muy ay picc ay ay ay heure ay taab ci yaram yooyu yëpp benn xeet bi la parce que quand ça dépasse de de un millimètre jusqu'à cinq millimètres on parle de euh, papule wala pustule waaye su fekkente ni maanaam taab bi dafa dépassé cinq millimètres bon euh, bu boobaa dañuy wax ni lii nodule la mooy genre taab yooyu ngay ngay xasal muy toj hmm, yaram bi di yàqu euh, léegi nag feebar yooyu lu ci ëpp ay inflammation la au niveau des follicules pilosébacés loolu mooy lan euh, parce que dafa am lu ñuy wax glande sébacée c'est un peu vraiment partout dans le corps euh, lépp ci yaram wi ci kaw ci suufu der bi yàlla dafa def ay saak yoo xam ni moom mooy tooyal euh, li nga xam ni moom mooy der bi parce que der ndox lay dundee dinañ ko xam ci biir waxtaan wi parce que yàlla wax na ci benn aaya mu ni wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayyin lépp loo xamante ni day dund rek yàlla nee na ci ndox laa ka def loolu nag yàlla da ko def ci suufu der pour muy tooyal der day am ay inflammation yu am foofu vraiment am na tamit hypersécrétion sébacée ndax dafa am benn liquide bi ñuy wax sébum loolu euh, glande sébacée yi ñoo koy defar ngir mën a aar yaram wi euh, benn liquide la euh, su ko defee nag liquide boobu yenn saa yi dafay ëpp su ëppee nag bu boobaa mën na jural nit ci loraange ci yaramam waaye loolu yëpp dafa am na koy waral léegi nag su ko defee Euh, ñi nga xam ni tey jii dañuy am problème boobu yaram bi di xasan yaram bi di di di di di di di génn ay tupp tupp yu ñuul ñuy wuti diw fu nekk ah, gel bu nekk ñu laal ko euh, ñëwal fii ci kattanu borom bi ñu jox la ay solution dina la jox ñeenti solution euh, bi ci njëkk mooy mm, nettoyer la peau sans savon waaw ñun ñi jàpp nañ boo sangoo rek Euh, mooy ndox ak saabu fekk ndox rek mooy setal hmm? loolu borom xam-xam yi xam nañ ko ce que j'appelle euh, la toilette de l'oiseau mooy maanaam sangu sangu picc gis nga picc yàlla daf ko protéger njanaaw yu ci bari dañuy am ay ay ay ay dóom seen der tax ko diis noonu der bu woyof lañu yor ba ci ginaaraan ah. mais euh, yenn saa yi dugg si ndox mi dugg sangu picc day sangu si ndox noonu ndox rek lañuy sangoo te ñaare bu ñu deewee sax pour ñu nëb sax problème la waaw ndax seen protection bi nekk ci seen der bi kon yenn saa yi da ngay sangoo ndox kese nga fexe sangu ndox kese moom set wecc lu bari lu ñuy jaxasee saabu yi fi ñu toll nii ay produits chimiques la loolu la nit ñi xamul mais euh, vraiment il faut nga bàyyi loolu xel ñaareel bi mooy euh, moucher avec de l'eau bien rincer et sécher les serviettes su fekkente ne mën nga am ñaari sarbet moo gën wutal ñaari sarbet nga koy alterner ba ñett sax su ko sa doole attane yenn saa yi nga fóot benn bi ak ndox mu tàng hmm, weer ko ci naaj bi waaye am na ñoom ñu sangoo ba setal rek ci ker gi lañ koy tegaat microbe yi ak bactéries bi yëpp euh, daal di ci dund boo ñëwee nag loolu dafay nekk li nga xamante ni moom euh, dafay euh, jur loraange ci der bi ndax am na benn bactérie boo xamante ni ñu ngi koy wax propionibacterium acnes mooy indi acné nga xam ni ñi nga xam ne seen der bi day def ay picc di toj di def ay ay dëtt ah, picc bi di ñor di zone ah, yooyu yëpp ngay am si kanam gi yëpp je rappelle également que euh, l'hypersécrétion sébacée et androgéno dependant vraiment yu ci bari il faut nga dem ba mesure muy doog a feeñ parce que siti dina sonal xale mais boo demee ba mesure dafay dafay dafay daal di euh, law euh, ñi mu gën a sonal mooy ñi nga xam ne dem nañ ba commencé am les caractères secondaires moo xam góor ñi la moo xam jigéen ñi seen kanam yi di génne ay picc yi bon partout dans le dos vraiment fépp muy toj di xasan euh, waaye nag utiliser li nga xam ne moom mooy zinc zinc benn oligo élément la qui joue un très important dans la protection de notre peau vraiment léegi nag li tax nit ki su amee yooyu ay picc ay siti su fekkee am nga loolu euh, lu tax boo lekkee jën mu yokk lu tax booy lekkee euh, soow lu tax boo naanee soow mu yokk wala gerte parce que euh, dañuy wax ni euh, zinc bi ma tudd sànq xam ne mooy protéger der bi loolu euh, su fekkee na nga jël en même temps avec la le calcium bu fekkee li nga lekk dafa riche c'est trop riche en calcium vraiment le calcium dafay causer des difficultés à l'absorption du zinc zinc dafay protéger suñu corps te boo jëlee calcium bu bëri dootu sa sa sa mbaax dootu reesal li nga xam ne moom mooy zinc de ce loolu day gën a améliorer sa feebar kon yow mi nga xam ne dafa da nga siti moytul euh, moytul yooyu ñi nga xam ne dañoo xeesal ba lakk aussi euh, na ngeen ko bàyyi parce que diine nanguwu ko loolu yëpp ngeen xam ko incha allahu ku fi ñëw rek di nga di nga am yu baax yooyu dëgg-dëgg yi ngay diwoo yi dindi say taas yi dindi ay picc yooyu yëpp te doo ci am sa lanteeg sa borom kon nag ala kulli haal xeesal baaxul ah, dafay rey euh, glande sébacée yi dafay rey der même boo demee ba nekk mag dafay feeñ kon loolu laa leen indiloon ci seen émission l'ordonnance ngeen gën a abonné xam ni bis bu nekk da ngeen koy am fii ci Regard 114 euh, yal na yàlla defal nu tawfeex wasalaatu wasalaam ala rasulillah